ci men rek laa ci men du ma suivre waa ji ak seen ay affaire ak yooyu mais li si li nit ñi wax ci ngay mën a sukkandiku pour que nga mën a indi sa xalaat quoi parce que boo dégloo ni euh, gars yi waa ji naxoon na leen indi leen leen foo yaay yaay jooju noonu naka te nekkul yaayam ñu dikkuwaat mu indiwaat beneen problème tegaat ko ci ko taal bi waa bi mu leen naxee d'abord rek euh, mhm. beneen problème bu mën a ñëw rek beneen problème bu waroon nañ ci mën a jàngat quoi man dama defee ni léeg-léeg yi tamit ñu leen di nax ñoom ñoo koy bëgg quoi parce que am na nit yoom te ni tey euh, ki ñu dëkkandool seen buntu kër wala ki dend ak ñoom day feebar feebar bonte ni boo moytu moo gën a sax metti kii feebar bi mu feebar mais ñoom pour ñu dimbali nit ci kaw moo leen di gën a arrangé ko ñu dimbali nit ci suuf d'abord loolu dam benn njàngat la rek moo ci am quoi pour sénégalais yi tamit ñu am si jàngat pour delloo si waat seen xel toot tuuti ci côté boobu kenn neewul li ñu def baaxul parce que dimbali nit moom kenn du ko kenn du ko sikkal beneen ni ñaar ñi ñuy wax dafa mel na dañoo mel ne individuel daal maanaam ñoo xamante ne amuñoo ay waajur parce que su ma dégloo doo déglu fenn ci wax bi foom te ni seen waajur bi jéem na def lii waajur ko jigéen ki jéem na taxawu sax doom ji pour ko mu dem parce que nangam ak nangam mais daal waa ji nee na jëkkër ji nee na bëggul doom doom ku jigéen ki dafa nangoo genre yooyu mel na ñoom ñaar amuñu waajur te pourtant ñun sénégalais dañoo baaxoo ay waajur maanaam ñoo xamante ni tey suñuy waajur ñoo ñuy taxawu di waxtaan ak ñun ak genre yooyu noonu tey problème bii nii bu demee bay egg ci internet bu te waajur yi taxawuñ ci man dama jàpp ni ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci kilifa ndax jàpp naa ne bu ñu amee kilifa waa ndaw si ñu ne dafa feebar ba tànkam bi di nëb ay waajuram war nañu mën a ji bu fekkee jëkkër ji nangul waajuram yi war nañu mën a jël seen responsabilité taxawu ko jël ko ne ko ñun ñoo la jur kii juru la demal nga dem faji sa tànk bi daggal ko ticket so kon man su ma jàngatee ci wax ji dafay mel ne ñoom ñaar daal dañoo amuñu wayjur maanaam amuñu kilifa daal léegi benn chose bi moom mooy que ni ku góor gi na nekk nit mu def boppam nit def boppam kilifa góor da ngay nekk kilifa sa jabar am na problème tànkam bi dem ba am problème naw naw tànkam bi dem ba am problème mais dimbali ko nga jàppale ko yoo tamit. nga may ma ma am lu ma alerté. passeport ummi 15 jours moo ci des 15 <clears throat> jours moo ci des. léegi non Rox Rox dogguma la. waaw est ce que duñu ñaan sunu borom passeport bi visa bi yàlla na varié est ce que duñ ko ñaan. non non Kali. ah déet xale bu jigéen bi déet Roxu Roxu ah. Roxu Roxu kat nañu wante dëgg. parce que xale bu jigéen bi comme bëggut lu baax. kaay la ñu jàppale ko si ñàkk bëggam lu baax. mais est ce que xale bu jigéen bi am ay kilifa tamit. xale bu jigéen bi dafa naïf mais yaa ji ànd. kilifa kan mooy kilifa. waaw moo ma jaaxal est que moom am na ay kilifa. am na ñu ma ma ne ma ne bi nekkul mineur. xam nga fan la ñuy waxee waxu kilifa. mooy mineur. tey mënoo nekk magum jëmm. ngay dund li ngay dund sa tànk bi am problème. ba ñu naan mu ngi nëbëg ñu ngi koy waaja dagg. nga ànd ak sa yambar bi boo xamante ni buy tëdd guddi mbàjjoom motul day banku. yorul lu mu lekk bi mu taqee ba léegi bu yelawaanul si TikTok bi du am lu mu la joxee dépense. nga jékki-jékki sa tànk bi di lagaj di gën a foxostalu ay nit ubbi seen xol yërëm la sunu borom def ñooñu dimbali la dajale xaalis dee tawaay wutal la visa ak rendez nu mu jafee ak tey am visa nu mu jafee ñooñu bokk ñoog yow ndey bokku ñoog yow bàyyi bokk ñoog yow ñaari salaamaaleykum yërmande kese la nu am ñu wutal la visa sa jëkkër waroon point de presse sant ak ngërëm ñeel képp koo xam ne jàppoon na si combat bi ba sama jabar am visa defu ko muy ngawti ngawti naan bu amul visa moom du dem deeta waaye xale bu jigéen bi waroon am fulla nekk bu ma mënta dem man damay dem parce que sama bopp moo ma la gënal du bañ naa la xale bu jigéen bi ëlbatiku di fóonante ku góor keek di longonteeg di kokkali ñi leen ketal ay fukki dërëm ak ñaar fukk kaay leen ñu ñaanal leen na visa bi périmé bu ko defee ëllëg ndaw si bu carte d'identité am réeree bu demee rek police pour wut carte d'identité dinañ ko ñef waxuma laak pour mu amaat visa dama ni nañ leen nekk nit ay nit ñu ngi taxaw buntu CTO am problème mu ordonnance cinq mille francs amuñu ko yow ay nit nekk bitim réew xamuñu la bokk ak ñoom ñaari salaamaaleykum borom bi ubbi wërsëg tàccu la benn yoon nga war ko fecc nga ne doo ko fecc bu doon da tëdd sax dallu ñu naan lu xew ana ummi dafay naqarlu affaire bi day triste defoo loolu ngay toog si topp sa yambar bi ak ay rastam yi xamut ngay fóonanteeg di kortanteeg di di di di di mais arrête nañ ko ñaanal yàlla na visa bi périmé. kaay ah, ñu ñaan kali visa bi ñi ñu ngi naan ah, six mois la du six mois visa bi un mois quinze jours la. visa bi li ci des bu matee 15 jours ci la yam un mois 15 jours la am pour muy clair amul 6 euh, mois yaayam nag amul ko neex xam ngeen kan ngeen war a waxal boos mii moo nekk ci ginnaaw moo yëy ummi ci boppam moom moo naïf. moom ci boppam moo na boos moo nekk ci ginnaawam. léegi nag moom moom mooy xool ndax mu dem faju ji. bi tàppar ko dóor ko ba ko. boos bi du sénégalais bu baax xool kii du dimbali jigéen ummi bu yaakaare boos tabaxal ko étage. dina daw ba yowmal xiyaam parce que góor bu teg jabaram bët mooy kii yow nanguwoo liggéey gaa ngi xeex toog muy dox bi Sénégal yow <laughs> non mais boss attends <laughs> non parce que moom jàpp na ni jabar ji bu demee ñu defar tànk yi daal dootul am fu mu taxawee ne toog bi picce picce picce xam na ne daa moom ci boppam ah daa soxor sax ndax moom ba mu xamee ne kenn mayu ko te ba pare ummi fi mu toll hôpital bi dégagé nañ seen responsabilité delloo nañ ko xaalisam mais ba tey am na possibilité dem ba tey kooku nee na ko boo ñëwee ma boole la ak assistance sociale yi kon moom ba tey am na possibilité dem mais moom bi mu xamee ne rek amul ci la yàq lépp man kii dama ne lii soxor la yaayu ummi nag amul lu ko neex amul lu ko neex tey bu sañoon doomam dem mais moom mii moo nekk ci diggante bi di ruutale te xaas bi daleen leen cee teg stop yaa gis kooku noonu doon ko dimbali mair bi fenkat la ko taxe démb démb daa mel ni ku ko xamul jaay leen reewal da ñoom ñëpp dal leen maire bi ma madame gise kan moo ko taxe fenkat kii ni euh, nu mu tuddati boos ah moo tax nag ma ne la nañ leen ñaanal visa bi périmé yoo xam nga ni visa bi du dem bul sonn ah, nit sonn yow kon kali maa ngi lay bàyyi amal ah, jàmm. waaw jërëjëf am na ku sax ne xam na dossier bi yónnee na ma affaire. xam ah, naa waaw kon baax na dem jëli ji affaire bi gën a ñëwaat wax si. jaajëf kontaan nañu. jaajëf Collé Collé ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar Kali. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi lay sant bu baax. noo jàngatee mbir meek waajeeg gémmiñam bi mel ni antenne parabole ak loolu noo ko jàngatee. ah na ci dugal yërmande waaye na ci dugal yërmande parce que sante kenn du fawee santé de. parce que play yoy non bu infecté rek man nako benen indil benen problème na ci bayi yermande bayiko mu dem faju ji moy yoon Europe bi nga xamné ne yewu tawté sedd kessé fi am dara amu fi dara amu fi nako bayyi fajusi, mu bayi faju fajusi. nako bayyi mu faju ci la patience est la clé du bonheur bu ñewé faju ci comme li nga wax rek après bu toogee mu defal ko regroupement familial wala invitation mu ñëw fii moom ku yàlla ne di nga fi ñëw rek ala kulli xaalin di nga fi ñëw dara jarta yàqamti patience la laaj na ko bàyyi mu ñëw faju si ndax feebar bokkul ak lenn. doy na waar. bokkul ak lenn feebar bokkul ak lenn lenn lenn santé la c'est au sérieux. Mhm. santé la c'est au sérieux du dugg naa Europe mais faju la faju. Mhm. c'est au sérieux de on rigole pas avec la santé. am na solo. jërëjëf ñu déglu waa ji bon. Euh, kane kale sibit xamu la. def. waaye sant sunu borom. aha man Gambien la kay mbir mi yëpp ñoo ko bokk Gambie ak Sénégal bi. Mhm. parce que ki nga xam ne moo leen dimbali Gambien la. Mhm. mu ngi tudd Aïcha. daf dee def like daf dee help nit ñi ñi nga xam ne dañ feebar. Mm-hmm. loolu may liggéeyam Gambie loolu may liggéeyam day dimbale nit ñi def funding boo xam ne nit ñi dañuy jël seen xaalis di ko ko jox muy dimbale ay nit mm-hmm. léegi bu mu dajee ak kii si Facebook la gaay yi dajee si lu gaay wax si Facebook bi mu gis ko bu yërëm ko dimbale ko def live ne ne gaay yi def funding pour ñu jàppale ko pour kooku mun a am donate ñu mun koo yóbbu dem faj ko mm-hmm. so bu visa bi génnee xale bu jigéen bi mu ne moom du mun a dem ndik jëkkëram amut visa mu dafa war dem ak jëkkëram ñu ko loolu du problème soo demee di nga am ñu la dimbale parce que Europe doo nekk yow kenn rek si lopitaan bi. di nga mhm. am ñoo xam ne ñun si bi ñu ngi liggéey foofu mun neen laa ekkati la teg di la dimbale di la solo yére lépp mun neen laa dimbale. waaye jëkkër bi dama fone lu mu amutee visa moom dafa bëggoon a ñëw pour toog. Mhm. mu gis ne amut visa moo taxit mu aayee jabar ji pour mu dem. Mhm. parce que ñi leen dimbale Gambien leen ay la tudda loolu may mhm. liggéeyam. Mhm. Europe bi fii la dikka loolu may liggéeyam waaye am na ko métti bis ko bu mu eggee ci bi amul luñ ko waxul si live bi ne da ngay ut followers ñu xas ko fa wax ko lu nekk te loolu rafetul nit bu jël time am am njabootam jël yëpp tegee ko côté ñëw dimbale la di la jàppale soo munta dem sax wax ko wax bu rafet waaye naan ko da ngay wut followers parce que jox neen ko foog naa ay 9000 euros foog naa. Mhm. si li ma foog xaalis bi xal naa sakkan moo nekk seen xaalis si poos lu gay amee seen seen poos te xaalis bi dugg na ba pare. Mm. seen compte yi loolu rafetul. loolu rafetul ni fu la dimbalee soo mun a dem sa ne ko jërëjëf waaye bul ko xas bul ko saal gàmbe ne am na lu la métti bi ko ñoom ñëpp génna si ne ñi ngay live ku nekk ngay wax xam nga. waaw après léegi duma djegalu sax dina am mbokk Gambia yo gis ne ah yena gis sénégalais yo xam ne ngeen dugg ci ñoom. lolu la gay nek di def ñu ne lolu moo tax. Sénégal ñu dem dimbale sénégalais te gambia yaa ngi deru sénégalais yëpp. waaw te Gambie ñu na leen wala moo tax ngeen dem dimbale sénégalais. te ngeen gambia am nañ ñu mel ni ah. kii am nañ ñu mel ni Oumy Gambie lu tax dem leen dimbale ñoñu lolu la gay di wax seen dafa indi compliqué mais dafa over compliqué dinañ ko wax de. ya so ma haram xaaral ma leeral ko and bo dem fekk fa borom tok exactement foog naa jigéen bi England la dika ñu ko fee binda sa mm. England la dika mm. noonu la fa affaire bi demee daal waaye choc neen trop te surprise neen am neen really betrayals because nit ki suñu dimbali bi right now amul dégg ñu koo saaga naan ko waaw loolu moo tax nga war dimbale sénégalais sax ah, dina dina musiba kay dinañ ko ne baax na si amul lu mu waxut te kooku yaaga na di def lii mooy liggéeyam yaaga na di dimbali Gambien yu bari la. daa am xool bu rafet rek moom xool Gambien wala Nigérien xool def rek teel.